léegi loo looy ñaan dellu ci sa jëkkër. dellu sama jëkkër yàlla may leen. ay njaboot ban. Ah. Ah, ah, yow kon daa bëri kersa tourné lii kon ne ko da bëri kersa. waaw. kon koo xam na ko Sonko it indi na ko waa kon léegi kon xam nañu ñoom ñaar ñëpp yàlla mooy ki existé. waaw waa seen mbir état la la yow. code. Mhm. yaataay lii. tàngaay bi waa sëñ bi. wala ok sëñ bi voilà. loo gis ci àdduna. yow bu doon lu waay yéene nit rek mu dal ko man yow keneen ñun ñëpp booy ñu xëy toog. te xam ni kenn du xëy génn këram n'est-ce pas. te damay faral di wax lu dul jàmm chaque jour ma wax la ko jàmm moo ko gën te am na ci loo xam ni daanaka lor sa askan lor sa njaboot ci la bokk parce que boo koo xam ne xam nga fi li may faral di wax jaww du Ousmane Sonko du président Macky Sall ça veut li ñuy wax mooy li jëm ci réew xam nga dafa am loo xam ne boo xësee xew lu ne xaj na ci dafa am loo xam ne bu xësee jug doota ni fii lay yem wala fee lay yem te am na ci loo xam ni li gën gënul ndax li gën mooy li nga xam ni mooy jàmm li gënul mooy li nga xam ni day yee fitna kon nag ah dafay baax ndax dañuy wax ni ku yuuxuwul tey di nga yuuxu suba da ngay profité nag yuuxu balaa subaa jot nga yuuxu te nag jaw bëri na nag loo xam ne nag surprise lay doon te day ñëw ci ci ci mbir moo xam ni après li waa ji di wax rek musiba du yem ci bopp ci loxoy boroom dina dina dina def ba toll foo xam ni ah ku ku ku ne ci ñun dinga tiit ci sa réew ku ne ci ñun di nga jaaxle ci sa réew ku ne ci ñun di nga di nga am njàkkare tuuti ci sa réew. Hmm. Euh, waat ñu woo Sonko le ko waat justice la moom xam nga justice moom vraiment comme ci réew la nekk te ci ñun ñii ñëpp ku ci nekk da nga ci tënku n'est-ce te ku ci nekk bu buñ la woowee da ngay dem wuy ju ce pas kon dañuy wax rek xëy na ki la woo ñaar la olof wax dana la jox baamu ah waaw. kon nag comme am na lu fi jaaroon yàlla sotti ci ndox mu sedd ba nañ ko fooge woon amul te doo nekk ca départ ba amoon na jafe-jafe kon am na ñu rafet njort gu wér ni yàlla mun na dogalaat incha allah yëpp nekkaat ci euh, sedd gu incha allah. Hmm. Euh, d'accord. Hmm. am naa ah, bien sûr boo fa tegg wélu ma tegg sama loxo <laughs> ah. euh, hmm. man waaw. déglu ko imam moom man njort naa ci sama xam-xam ak ci sama xalaat bu gàtt xam nga kudul juum amul ci kaw suuf jaw première njuumte rek mënta weesu sama jàkk ji loolu moom sama jumaa ji loolu moom njuumte mënu ko weesu ndax dama daan dégg ñu ne sëriñ Abdoul Ahad Mbacke dafay wax ni moom d'accordul jumaa ñu naan ko kër sëriñ Touba ndax nee na lu yàlla moom delloo ko ko rek kon kooku mënoo ko utal borom. kon li nga xam ne tey maara détaillé bu nit demee barzaq ñu ne nañ ko yóbbu ci morgo ba jaw ñu. dégg jaw bu nit demee barzak eh? ñu ni yóbbu leen ko ca morgo ba eh? woo leen imaam mu jullee bu nit ganesee àdduna ñu ni woo leen imaam mu tudd ko kon nag day day baax mm-hmm. kooku tey mm-hmm. di exemple kooku tey dafa njaboote mm-hmm. xam nga imaam tënkuwul fenn ndax booy jiitee du ñi taxaw ci sa ginnaaw ñépp du murit du tiijaan tey ña fa daje ñépp xamoo ñan la te bari nañ kon dafay baax rek ndeysaan nga wax ci ci yàlla ak yonent bi comme la ma Abdoul Aziz da baax daan wax naan Sénégal gi yépp xam nañ ni man intérêt personnel wala intérêt peuple ban laa ci gënal man intérêt moom mu ni intérêt peuple ci lay dox kon nit nag booy dox ci intérêt peuple da ngay njaboote ñëpp kon doo fee jël fenn di ko féetale fenn daal rawatina nag mbirum euh, ku ci dee dem sawara moom loolu moom ci loxo yàlla nekk aussi jaw Hmm. barki démb dama ñëw fekk fii fees yàlla. dafa mel nit ñi mooy xam. liggéey nañ. <laughs> waaw bisu yàlla xam na ko liggéey nañ pour pour mu leer xam nga feebar. xamul xamul korité xamul fête te jaw. koo dégg mu ne la day korité. Hmm. daa fekk mu wér. kon yow doo ay conseils <laughs> bu demee. waaw kay amul problème que moo ah loolu kay kootu nga ko war a laaj nu kootu yi nekke nekkee kër xaas. kootu kay ni mu nekkee kër xaas mooy en kootu ah, ne ko. Hmm. mu ne nu kootu nekkee kër xaas. waaw lu lu lu dul faju bëgg a dellu jëkkër ji. ndeysaan léegi loo looy ñaan dellu ci sa jëkkër. dellu sama jëkkër waaw. yàlla may leen. ay njaboot barke boo waxee woon sumbul sumbul sumbul. ah moom nag xam nga man la gën xam loolu moo nekk problème bi jaw jaw nee na na man fu ma waxee ñu ni sumbul. kon moom fu ma waxee ñu ni jëkkëram. waaw loolu am na ci plein droit loolu moom. dégg dégg waa jaw nekk amul problème leeru moom. mais mais macha allah bu ngi may attaayal nii. ah waaw. ah man maa gis eh, eh, ko dama nañ dem rek. jaw ah, ah. <laughs> jaw kon daa bëri kersa tourné lii kon ne ko da bëri kersa. waaw. waaw ah, atia waaw baax na du ma la wax waaw. waaw mais amul problème ah. Ah. mais sant yàlla comme bu ñu demee day ba koodu kay ah. nee na man fu ñu waxee ma ni sumbulu xët moom fu ñu waxee mu ni jëkkëram loolu taw feex la ah bien sûr xam nga jaw dañuy faral di wax ni gis nga soo demee ci cosaan famille boo gis am na ci ñenn nit ñoo xam ni seen famille dafa am cosaan buñ nee cosaan ñu ni lu jëm ci tuur xam nga koodu tey mm-hmm. ku waajuram bu góor day faj mm. xam nga ko woon déjà léegi lan la doon ci loolu ak fan la wax ja jóge tey boo ko laajoon mu ni lan moom mii rek naturel parce que ki ko indi mu ngi may leeral ni ma rakkam bu góor beneen sa rakk bi nekkoon ci daara ja nee na dèjà bu tëddee rek day am lu yóbbu ba day waxtu ci néeg ba du ñemee ça veut dire wóor ni li topp nekkul ci kenn rab la rek du leneen dafa nekk loo xam mbirum cosaan la léegi force ñu jàpp ci kenn léegi da nga boo ko teggee day tuxuwaat ci keneen bu demee ci keneen xëy na nga waat lu mel noonu la rek mais du lu du lu du lu daal. Ah, non non non garaawul waaw dañ ko yéene ji nga jaw mhm. Sénégal dañoo am yërmande damay wax ni du kodd rek mais da ngay gis tey koo gisoon tey mu nekk ci biti mooy xam man yàgg naa ko boo xoolee ma ni la su ma amoon lu ma gënal tey waañ bii nit ñi di fajee démb ay ay malade fi lañ fanaan waa léegi lan moo sabab la kon daf lay wóor ni kii dem bay téye bay dugal ci nit ñiy fanaan ci waañ parce que amatul néeg bu mu leen dugal man néeg bu nekk mal bañ nekk ba sama waa kër mhm. mii génn na néegam pour ay nit pour nga xam. bien bien sûr waaw. parce que loolu lépp ndeysaan day dem ba dootoo mën a internet ñëpp jël leen mais suñu yéene yàgg nañu wax naan suñ ko mënoon dañuy day yaatu lool su ko defee luñ ci man ci lu mel ni xeetu code yi comme ataaya ju naqari la ñuy ataaya ñu jaamu ci yàlla. ah yaa ngi tooñ yaa ngi yan xeetu. waaw mooy tuur rek xam nga. tuur say say ma da ngay gis ñoo xam ne seen maam mooy li ñuy samp dañ koy samp par exemple li lii dénk nañ ko njaboot da ngay gis ñoo xam ne seen doom bu juddoo sax dañuy wat karaw ga yóbbul tuur jour ngénte la ñu rey li maanaam même laax yi bu pare tuur ba la ñuy ñëkk yóbbul même añ yi ba pare tuur ba la ñuy ñëkk a yóbbul parce par force dañ koy jox ba pare am ci ñoo xam ne da ngay gis même bu seen doom juddoo dangay ngay gis bi day ba ci liir bi laxasu ko am ko laalal dem loolu nag noonu la ko tuur bi di toppee parce que jour ba mu juddoo nga jël ko ak tuur ba ak karaw ga nga wat la muy lekk lekk yóbbu tuddee nañ ko diw dénk nañ la ko nga cay teg te da ngay gis ni da ngay gis koo xam day jël palaat ba yóbbu ci seen tuur yi fi mu ne gis nga bu tegee bool bi deux minutes boo demaatee da ngay fekk mu set wicc léegi est-ce que nekkul ñàkk mais day fekk nga xam ko xam ñaata nit la loolu gàllankoor parce que bu fekkee sa maam tuur yi ñu ngi ko samp bërëb sàngam yow nga màgg xamoo loolu léegi ka ko sampoon faatu na sa waajur waxu la ca parce que après daf lay commencé du sonal parce que tuur moom xoolul li wala xoolul la moom ku mu attaqué rek la xool. mooy lan. rab bu boof. bu dee jinne ñu ne jalag ah, ah. bu dee tuur tey boo demee suñu mbokku lébu yi. da ngay gis njàkk yi ñu teg heure bu ñu xëyee tour ca soow mais li ci yéeme mooy ndaala kenn du ko root te heure boo nee fekk fa ndox léegi bu la waree jariñ nga war a sangu ci njàkk yi da ngay gis du ñoom ñoo koy duy ñoom ñoo lay nangul nga fekk fa ndox dégg nga wax bi am na ñoo da ngay ñëw tuural leen soow am ñoo xam da ngay ñëw tuur soow ak guro am ñoo xam da ngay ñëw tuur soow teg perkaal ku ci nekk ak xeetu saraxam comme nit nit wutee noonu la sarax wutee boo déggee chaque jour ma lay wax ñaar moo ci am contraire ak sens contraire da nga gis nit ki buy dox féete nii yow ngay dox féete nii tey am na saraf boo ko génnee lekk kuy dox lor nga ko ndax par force day toog moo tax du sarax bu ne rek da ko war a def c'est dangereux. barki jëmb am doole ci xam nga xam nga en général dama daan dem dañ doon faral di def fii émission ma lay wax ni wàllu lu jëm ci paralysé. dafa bëri loo xam ni rap daf koy def te même maire bi daf ko confirmer parce que da nga gis bi muy dugg gis nga dañu ko jàppee léegi lii problème bi mooy dégg nga même li ko jàpp daf ni moo takk si di moo tax tànk bi mënul tàlli te noonu laa la ko waxee woon parce que dama ni la tey sa loxo bi ak fii ku takk fii buum takk fii buum loxo bi du wàcc ni waaw ñoom nag ci biir lañ koy takkee loolu waral wàllu paralysé hôpital ñoom ci seen xam-xam massage lañ ci mën parce que ci seen foofu xamuñu lan moo ko téye te li la war a jaaxal mooy lan moo tax fi war a dëgër këng ba jaw bu ci appuyé du wàcc. boo amee bopp jaww bu ci doon nga langaamu maire bi day daanu rek waaye fii moom du wàcc mukk parce que sidit bi tax loxo di def nii nekku fa. loolu rek la te nga dégg li ko jàpp ni depuis bi muy xale la ko jàpp nga dégg mu ni fekkoon na ko mu xees rafet léegi xoolal meer bi ba ci bëri sax du koo jàpp. du gis bu baax te dégg nga ni mu ni moom moo ci jubloo loolu parce que moom mi ko jàpp dafa màgget kon bëggul kii am jàmm. waa xam nga rab c'est simple tey dafay mel ni nga yor sa doom ni ko waxal mu beñ nga dóor dóoraat bu safee bala ngay ji xàccaat mu commencé wax ah mais am na ci loo xam nga tey nit ku tey maara deytal ñun ñëpp kuñ kuñ tàngal asib sotti la nooy def doo yuux waaw moom it bu laalee garab noonu lay mel ci moom. fa mu koy nekk ak lu mu métti métti ci yaram da koy lakk loolu mooy li danger. d' accord euh, suñu jugee foofu mbiru occasion bi dama koy tegee à parce que xam naa ne fan yi moom li ma raté li ma ñàkk si mbiru faj <laughs> dama ngay xam 100 pour 100 preuve gars yi ñu may woo ñu ma laaj partout euh, ñu dellu tuuti si kon dañu gis nga def live muy am lu muy wat lu muy génnee la. waaw xam nga ba ban xeetu. rab la wala loolu du rab xam nga boo déggee ci biir waxam nee na la jigéen ju njool laa taseel jigéen bu xees laa dajel waaw léegi la mu dajal kon lan la loolu koy kodd mun na ko nettali boppam parce que li nga dajal mu jox la si kodd dé nee na jigéen bi mu dajal kon koy loolu moom la léegi ça veut dire da nga la mu dajal mu jox ko si xam nga moom premier jour déjà bi mu ko naan dafa gis biir bi ni muy xottee ko mais yow il faut nga xam leen mag ñi lépp lu ñu daan tere da nga daan dégg ñu la boo dajee booy dox ci mbedd lu ñu la jox bul lekk da nga ko daan dégg mais léegi sunu problème xam nga lan la léegi da ngay bàyyi sa doom mu dem di jàngi dajeeg nit sax mu sarax ko dara te xamul lam ko sarax bu ñëkk xale da ko daan yar ci loo xam ni luñ ko sarax bu ñëwee la papa kii laa dajee lii la ma jox mais léegi waaw mais léegi da ngay sarax mu profité lekk ko ci sens bu dee mbiskit nga gis mu dem jël meew ma xóoyal lekk te xamul la mu dajal ak la ko jox lan la loo def ci joué maanaam il faut nga gëm ni gis nga rab melokaanu nit bu nekk mën na koo jël pour def nit ki lu ko soob ci nu mu ko bëggee jaw pour mat a bàyyi xel. d'accord euh, ñu jeexalee. na nag jaw. dimbali ma ñu waaw dafa woote dialogue. macha allah dafa mel léegi kenn wuyu si ko ñu ne déet du woote chef mooy borom aaya yi macha allah Idi moom. <laughs> waaw borom kooku da ngeen koy woowee Serigne. Eh. Idrissa Seck macha allah. voilà mu xam ne. dafa am benn baat benn baat bu Serigne Moustapha si bu Serigne Cheikh Massa wax sëñ Moustapha. mu ne ko Moustapha mu ne ko Labbeyka mu ni ko ku ne xam nga ki man sa baay waaye teewul sa baay ngay faral. <laughs> Ah, ah cooli cooli jaw yow mii da ngay gis làmb ñaar taxaw ci signature bi kii taxaw di jël ba jël dënn bi di ko teg moom wóor na ko ni kii ya ko mante du ko da da koy beñ ba bis ba bis ba buñ ko daanee ba pare na nga doon mu door a indi ndogalu yàlla te moment ba muy wax moom am na moom wér na ko ni kii bu ko daanee sens la waaye wóor na ko ni kii ya ko man te yow mii ci sa xelu bopp Sénégal xale buy dox sax tey boo ko nee diw ak diw doo nekk kii jiitu fop pour moom ki turu kii moo existé parce que loolu yàlla moo koy def ku ci nekk ak say moment nag da ko koy nangul gis nga jaw nit boo bëggee noppalu ku ci nekk li yàlla def nit ki rek nangul ko ko nga noppalu. man dafa am lu ma si jàngat mooy le premier janvier dama ñëw fi jël ak yow une émission. Hmm. li nga ma waxoon ba léegi maa ngi koy topp mais chaque jour ma gis lu gën a pire. Hmm. que nous sommes tous en danger at bi at bu métti la si Sénégal. waaw mais euh, Ousmane Sonko suñ ko daanee léegi bokkul ci élection est dina am mun na am de waaye nag ci jàmm la moo tax ñuy wax ndax tey gis nga wax naa la ko fii chaque jour nit fexeel nit fekk yàlla antuwul wan la doole bi teg ci te ñoom ñépp toujours da ngay gis ñuy indi histoire Firawna ak Moussa bis bu ne da ngay gis ñu koy indi léegi nag ku ko Macky Sall na koo indi ci ci Walfadjri kon koo kon koo xam na ko Sonko it indi na ko waaw kon léegi kon xam nañu ñoom ñaar ñëpp yàlla mooy ki existé li ma ci jaaxal yow yaa ngi yor nguur indi ko ko te kee ba muy ut nguur ak te Ablaye Wade di ko koñe indi na loolu wax Ablaye Wade ni ko kee amoon na doole trop mais teewul yàlla fii la mu jéeg moom wa léegi li ma ci jaaxal Macky Sall moo ko indi woon Walfadjri Sonko indiwaat ko nii léegi jëlal démb indi tey jël tey yóbbu démb